borom yàlla ci réew mi dañu fi wàññikoo ñëpp yàlla leen sa borom yàlla yërëm te jéggal leen suñu cant daal am na fu mu tàmbali waaye amul fu mu yem waaye nag bàyyi nañ nag seexul xadim yàlla na leen fay bu loolu jàllee nag ñoo ngi yëgal mbokki taalibe bi yëpp ne sëriñ Abo Mbàkke moom Cheikh Mouhamadou Fadal di xalifa Cheikh Mouhamadou Fadal fas na fi yéene ñëw ci fan yi ñu dëgmal incha allah rabbi altine bii nu jëm ci lañ ko fas yéene ganale fële ca hôtel bee ca capital bu ñu defee cant ak sëñ Saaliw bi ko taalib yëpp fànnoo bëgg nañ bu boobaa incha allah rabbi mbooloo mii fi teew mu ko raw na fi teew ngir lan ngir moom jëmmi seex Mamadu Faadal dafi indaale te faj aajo rek la nañ xamee sëñ Fàll na ko ñëpp waajal waajal ànd yu takku ñu siyaaree ko sëriñ bu ñëwee incha allah ñoo ngi ñoo ngi koy fàttali taalib yëpp bu loolu ñoo ngi ñaan bépp taalib ñu fi ñëw ñun suñu ñaan tey genn lay doon xam ne ñoo ngi koy yalwaan ci yéen yéen jàngkati xasida ak duruskat yi kër sëñ Tuubaa gee ñu war a song ñu am fa mbaar mu toll nii mbaa mu ko ëpp képp ku yore xasida daal ñoo ngi lay yalwaan nga ñaanal na ci sëñ Tuubaa programme bu ñu dikk ñu def ko ci kër sëñ Tuubaa ga tabaxal fa sëñ Tuubaa mbaar mu toll nii mbaa mu ko nag suñu kàddu lañ koy yemalee. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa loxo sëñ Cheikh Bët lay bi nga xam ne moom bi Sëriñ Touba di ko jox nuyoo mu teg ko si loxo sëñ Diagne koo bëggee mu gisaar bi si mbokki jëwriñ yëpp xanaa kàddu yi kàddu sant la ndax kenn ku ne natt doon tey la bisu sëñ Mbàkke Madina tey lañ koy ñaanal sa Sénégal ah ma ñaanal jëwriñ yëpp kenn ku ne sa bisu daayira nga defal ko kaami def ko àddi sëñ Mbàkke Madina te ndigalu sëñ Yàqooba jëwriñ yëpp def nañu kon nag damay ñaan si barke bi sëñ Mbàkke man nag kaamil yooyu yàlla ko yàlla sutti ay xéwal si réew mi te bu ko fi suttee yàlla bu si kenn ëppale waa kër sëriñ Tuubaa ak ak jullit yëpp am si barke bi sëñ Mbàkke man na réew mi nga xam ni yëngu-yëngu at mi yëpp la yëngu waaye yëngu-yëngu boo gis tekk moo si tegu kon ni ko sëñ wax waxa woon rek yàlla ne tekk rek nooy nepp rek barke bi sëñ Fallou di ziar sëñ Fallou laam xam ni ñu xam ni sëñ aboo ñëw fi sëñ moo fi ñëw ndax 1945 la sëñ Maodo Moustapha wàcc liggéey sëñ fàllu ñëw wuutu ko 1945 kenn ku ne xam ne ci la guerre mondiale jeex sëñ fàllu dafa ñëw guerre mondiale ni guerre mondiale jeex ni ni rafle mot rafle mot ràmm mot xiif mot ñu ni loo ko remplacé mu ni juba muut koll muut dara sëpp fàllu garas Touba jaarim kon ñun mu yi ñun ñëpp nañu tax te xam ne sëñ fàllu moo fi ñëw bu loolu weesoo maa ngi soñ sa den soñ muy Touba si kanam kenn ku ne xam ne diaspora bépp mi ngi dox ba mu des Argentine lu waral mu def Argentine diaspora bépp bi nekk si monde bi weer wu ne dañ wersi Touba si kanam Argentine ñaari at yu wers par année lay wers te ñoo ko waxoon ubbi nañ porte yëpp jëwrin bu ne dëkk ba nga nekk soo fa mënul toogal Touba sa kanam nga xool ki topp si yow mu toogal fa Touba si kanam te weer yi bu soobee yàlla ak ak jëmmi sëriñ Saalibu dañoo bëgg a weer si Touba sa kanam ana góor a gaay weer yi 60 peso la ñu jaayante ko kenn ku ne xam ne liggéey bu mag bi Touba di kanam liggéey sa Touba hôpital yi oto mbalit yi oto sapeur pompier ko ñi amul ndox yépp ña nga koy yóbbu Touba si kanam waaw sëñ yàlla na xatam 600 peso ku mën a jaayante nga joxe média ma yàq ci mag ñi toppoon sëñ Mbàkke Mar la neewoon na jàngoon xasida bu ko merloo ndax lu mu ñaan suñu borom defal ko ndax xasida yi la suñu borom barke la aw maga damaa bëgg bu ngeen jàmmatee xasida ba pare bis bu ne ngeen ñaan yàlla suuf si jàmm bi jàmm jooju sëñ Tuubaa da koy loolu laa leen gis ngeen def ko jërëjëf